I call upon governors to allow our churches and places of worship to open right now. If there's any question, they're going have to call me, but they're not going to be successful in that call. These are places that hold our society together and keep our people united. The people are demanding to go to church and synagogue, go to their mosque, Many millions of Americans embrace worship as an essential part of life. The ministers, pastors, rabbis, imams, and other faith leaders will make sure that their congregations are safe as they gather and pray. I know them well. They love their congregations. They love their people. They don't want anything bad to happen to them or to anybody else. The governor's need to do the right thing and allow these very important, essential places of faith to open right now for this weekend. If they don't do it, I will override the governors. In America, we need more prayer, not less. Thank you very much. Euh, gis na ne gouverneurs yi jël nañ ay points yu mel ni fi ñuy defee abortion wala fu ñu mel ni ay ay fi ñuy jaayee euh, alcool def ko ay points essentiels ay points yoo xam ne ay services yoo xam ne dafa essentiel yu mënta ñàkk si doomu aadama yoo xam ne nit ñi dañ ko soxla ñu boole ko si bërëb yu ubbeeku euh, si biir loolu la Trump wax ne loolu nag du dëgg du yoon ñu tëj jumaa yi tëj église yi tëj synagogue yi. ndax dafa nekk ay points yoo xam ne sunu société muy population bi dafa am si suñu société ay million nit yoo xam ne service yooyu muy bërëb yooyu dañ ko jàpp seen i bërëb yoo xam ne ko bokk seen àdduna dafa essentiel seen àdduna loolu dana preuve dana leeral kon nag gis na ne loolu injustice la gis na ne loolu du dëkk du yoon gis gi ko gis nag moo tax mu ne gouverneur yi jox na leen wax na leen nañ ko nañ jël service yooyu lu mel ni jumaa a jàkka yi ak synagogue yi boole leen ci service essentiel yoo xam ne nit ñi ñi ko soxla muy million américains yi kat danañ si mën a jot danañ si mën a dem danañ si mën def seen i julli danañ mën a def li ñu def ñu boole ko si su dee defuñu si weekend ba si weekend bi moom dana utiliser doole ji nga xam ne constitution may na ko mu pousse mu forcer loolu am mooy forcer loolu ñoom ñëpp mu override leen ah romb leen fii exécuté jël ordre am exécuté loolu loolu am muy ñu ubbi jumaa yi ubbi église yi ubbi synagogue yi euh, loolu mooy message dana Trump ay julli yi ay ñaan ak ay julli lañ gën a soxla que ñu koy lu yokk lu julli yi lañ gën a soxla waaye nag julli yi wàññeeku loolu mooy message de l'entraînement boo ko tënkee kon euh, li ma koy analyser nag ñaar ma ngi si benn dañu nekk période d'élection préparation élection loolu moom côté politique am la mooy euh, euh, ay conservatif ñooy ñoo ñoo ñooy ñooy Trump ñooy presque mooy électorat Trump comme ñooñu seen bëgg-bëgg la Trump jàpp mooy ñooñu dañu bëgg église ñooñu ay ay jaamukatu yàlla lañ ñuy dem si église ay catholique pur lañ orthodoxe ñooñu ñooy ñooy ñooy républicain yi ñooñu dañ bëgg lool loolu moo tax moom mu xool ne loolu mënta ñàkk mu def ko beneen côté bi tamit euh, buñ ko xoolee mën nañ analyser lu positif parce que bi mu tuddee ñee rek tudd te bu njëkk ñëpp xamoon na ne Trump ak moom mooy loolu quoi moom dafa yàgg a benn jullit yi andi andi ay problème ne kay li si am solo muy reconnaissance bi mu am ne Amérique ay jullit lañu gën a soxla que que que ay julli a soxla kon loolu dafa am solo uteeg sunu leadership bii di Sénégal nga xam ne même bi ñu ubbee sax jumaa yi gis ne bésu korité bi euh, dina naan l'état du Sénégal bu ne république bi julliwul ndax ministre de l'intérieur julliwul président demul julli ji kon ça fait que état du Sénégal dañ boycotté julli bi loolu moom moo nekk ndax gis nga euh, Aliou Ndoye Ndiaye mais nga xam ne nee na imam la ëllëg soppi boppam imam jël waa këram di julli jël distance boo xam ne kenn xamul nu mu toll kon